غير rero amati na أمة النبي منكر eh am nga 2 minutes sa daa waaw am nga oui mon kay nah. am hmm. mm. ah yow xanaa tay ji mom sawro de ni ma am na de mom masa ay di nga wax dem wi ma réew mi nga xam dañu xoolaat nit ñi lan lañu jàppe ñun ay dof ay kankar ay ngaaka ay waye di wala jurut xalaat waaw damay laaj la question la <laughs> dama xam ne situation bi am na hmm. ginnaaw bañ ko naqarloo te di ñaan suñu borom saafara lépp te ñaan gouvernement bi tamit à partir de cette année ñu teg lépp lu ñu mën a teg lu ñu mën lu nañ ko def pour lu mel ni dootu am ci Sénégal mm. ndaxte wàcc ak say bagaas rek ci ci gaar garage ba dix-huit heures foo jëm da ngay nekk en détresse maanaam da ngay jaaxle lool waxuma laa nga yenu say bagaas ak say ëmb ak say matelas di wuti foo fanaan te xam ne ñi nga bokkal ñëpp say dëkkandoo ñëpp yéen yéen a bokk même situation mm. loolu xam nga ne kon situation bu inquiétante la Mm-hmm. waaye moom kër. Mm. li ma jaaxal te xam naa yow la njëkk jaaxal. Mm. mooy ñii nga xam ne waaye maay waa ZPR ak benn bokk yaakaar ñii pré ñii nga xam ne inondation yi am Touba. Mm. ñoom ñooy nekk di partager vidéo yi kanaan dëkk bi metti na lii metti na. Mm-hmm. looloo ma jaax man dama bëgg xam ñooñu lan lañ ñu jàppee ñun Sénégal yi dañ xalaat wala ay dof lañ ñu jàppee wala. parce que damaa jàpp ne. Mm. ku nekk APR. nga xam ne ñoom bañ perte nguur geeg léegi ci juróom weer lay doog a toll inondation am comme ñoom yan yan maanaam seen ngor war na leen a mën a may ñu jël vidéo yi di ko partager di utiliser situation bi di ko use di ci politique naan réew mi dafa métti ba si jamaay fay waxoo ñu woon nii waxoo ñu naan loolu laa mënul comprendre quoi. Mm. d'accord. tey damay damay njëkk a répondre ci li ma laaj ne euh, ay dof lañu jàpp ay dof lañu jàppe jàppewuñu ay dof tu sais ki foog ne moo gën a muus ñëpp hmm. te gis nga dafa am dama koy dama koy njëkkee ci ci li li ñu daan wax jàppkatu jaan jaana koy rey hmm. manipulateur boo gis ci manipulation lay daanoo hmm. dañuy tàmbale comme comme li ma li ñu yàgg waxtaanee rek dañuy tàmbale balaa balaa may ñëw ci situation Touba. Mm-hmm. il faut ñu éclaircir Sénégalais ñoom réellement ñan ñooy baa APR. Mm-hmm. groupement la parce que juumate ñoo tax maanaam ñun ñoom soo seetloo APR bi muy falu. 2012 mm. ñun ay mbocc lañ donc xamuñ lan mooy fal. Mm-hmm. donc groupement la bu gëm loolu nit ñi ne alal mooy doxal réew yore ko nag ba mu doy. dem ci dëkk yi di saraxuwaat rek lu ñu jox ñu yaa dugal seen poche rawale yóbbu Suisse ak ñoom seen mhm. benn ñu am un gars bu leen diriger bu leen dul suivre un gars très intelligent qu'on appelle Macky Sall il n'est pas intelligent si il est très intelligent il est très intelligent intelligent mooy jiite ay nit fexe def pexe yépp ba mën leen a saytu xool li ñuy def ndax ñu ngi jubal wala ñu ngi jubbanti euh, technique politique bu pertinent bu ko laay wàdd jàngal mu teg ko ba lijjanti xoolal ba ba ñun jeunesse bi màggee deuxième kii mu xam lan mooy linjaar mu jaar fa amaat deuxième deuxième deuxième kii donc il est très intelligent. je ne pense pas. d' accord loolu je te je te l' accorde maintenant malheureusement c' est une personne boo xamante ni moom day fal ci taggal ma samay baaxi maam. Ah. boo ko taggee ma fal boo ko taggul duma la fal. boo ma saagaa ndey su ma la woowee jéggalu ma nga li nga tam nga am ko la preuve ñi ñi ñi nga xam ne dañuy transhumé yëpp ci loolu lañ lañ lañ ko amee mais loolu du cas bi la mooy cas bi. Hmm. on prend juste mooy li gën a naw di nga ne nag dama koo bañ yàlla xam na ne du bañ mais suñ jëlee kooku noonu may bañ a tudd wa di wax notion wu censure nga xam ne xamul dara ci droit ñoom ñuy yagari yagari ñetti at di ko jaabante université di jàng droit maanaam moom mu ñuy wax waxi censure ah naan ni waaw bu subaa damay def nangam censuré kii bi ci gouvernement bu jël réew mi ci mo moins de cinq mois Après, le mec vient pour nous dire que a censurées. Il n'est, en fait, ce pas des gens compétents. C'est pas des gens compétents. C'est pas des gens dotés d'intelligence. Et ils se prend plus intelligents et avec une arrogance. Arrogance, Va voir va voir ñi nga xamné ñi ci walu médecine dinañ ci génn wax ci arrogance day lëndëmal xelu ak xolu doomu aadama Macky Sall a été a eu un gouvernement arrogant da ngay xool sax ci seen audience boo leen koy am loolu c'est eux juste pour sénégalais xam ñan ñooy waa kër Macky donc bu fekkee au-delà de ñoom li ñu làmboo yëpp ñu yëkkati ay milliards xam nga sax mal doon laaj milliards ñaata la maa la raanal sama papa na diiru soixante ans la chaque jour cent mille francs maanaam nga jël quarante milliards nga ne danga koo jagleel benn dëkk Touba wax ji li muy rëy rëy nga ndut de daa doole rek mm-hmm. Touba nga ndut de dafa am doole ndax ay doo ñu am fulla ñoo fa nekk waaye nag bu fekkee yow danga danga ñëw di teg xel gars yi naan leen waaw damay teg leen te fekk li ngay def yëfu naa fekk dong la dong das yow léegi man ceci ah. dit quarante milliards yooyu on demande à Bassirou Diomaye Diakhar fay notre excellence audit bu gën a gaaw ñu génnee alal ji defar lii parce que bakkan du lu ñuy fooy nañ waxtaan dëgg kon kon yow man tey yow man yow man déjà rek su ma la gisul ni may jaaxle dix-huit boo ko wàcculee sama àdduna bi yëpp ay tukki te pourtant man ci kër gi non pas doxaan début bi hmm. ngay njëkk a yaakaar hmm, ah. mais bu dix jotee inquiétude mooy dugg hmm. xam nga tax parce que tu vas dire que lii du du du tàmm ko dix-huit heures fii la ko daan fekk comprendre nga après nag ngay doog lijjanti ndax day doxaanam doxaanoon moom na nga gis nit ki rek mooy doon sa mooy doon li important am na ñoo xamante ni xamuñu tey fan lañu jëm. waaw ñu ngi gàddu seen i matelas yow. xamuñu fu ñu jëm. amuñu fu ñu mën a fu ñu kii koñu lëmm koñu lëmm foo leen yóbbu. léegi man question moo bëgg a laaj te waa APR laa ko bëgg laaj maanaam bu ñu ne woon cinq mois yi fi gouvernement bi def résoudre na problème mu inondation yi. ndax ñoom ñoom seen digganteeg yàlla dinañ julli ci sijaada ba ñaan ñaan rek gouvernement bi mën a résoudre affaire inondation yi ci un an wala ci deux ans yi ñëw doomu. et j'en suis sûr que euh, tey jii nii set setal bi Bassirou euh, notre excellence a fait. ci ci ci ñaar ñaari yoon yii mu ko def. Mhm. man njort naa ne ci ci xel mu seetlu ne moo gën a wàññi dégâts yi. Mhm. parce que yaaram da gis nga gars yi liñ doon ci tuyoo yi. Mhm. foofu lañ def quarante milliards saa waaye dañuy caaxaan. dañuy caaxaan. nañ ñu nekk. ci ay caaxaan képp la saa waay yàlla natt woon. ba gouvernement bi réussir ci cinq mois yi régler problème inondation yi. et puis ñu koy jël maanaam naqaru nit. kay ma noonu lañ ma sa mel nag waa APR ñoom noonu lañ ma sa mel ils toujours. naqaru naqaru sénégalais yi pas nit naqaru sénégal maam sénégal bañ gi ñu bañ sénégalais yi xoolal bëkk dem pirogue yi chaviré ci lañ doon reetaan ñoom di ko ci di ci def ay waaw yàlla du nit xam nga maanaam j'ai pas compris en tout cas ñoom lan lan doon xaar ci cinq mois yi ñu def ci ñoom loo xam mun ñu ko def ci douze ans yi ah non yéen a ñàkk jom wax waxal nag ñoom yéen a ñàkk jom balaa ñuy taal jeex suñu kon dañu am kii ñu ñàkk jom ñàkk jom am nañ am nañ possibilité amaat jom di. waaw affaire ñu ñàkk jom. booy li leen wax loolu grave. waaye ñii ñoo dafa jeex quoi. ñàkk jom kay loolu day am possibilité boo ko wax wuti jom ñii xam xamuñ duy jom. yéen a bon. ñii ak peuple sénégalais fi ñu leen gi ñu bañ dong la waaye naa na leen xam gis nga seen iñaan gii ñu nekkee ca la ñuy faatu fépp duñ ko yóbbaat. c'est pas jeex. defal di cinq secondes tàggatu ragal leen yàlla benn seet leen ne dee am na c'est tout ce que j'ai à pour APR franchement